asalaamaaleykum mbokk yi déglu dalee nag jàmm l'opposition bi ma ngay wéy di ŋàññ nag décision bi nga xam ne moom le conseil constitutionnel daal di jël jëmale ko nag ci recours ga ñu ko jébbaloon keroog ba ñu daal di voté ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin fële nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ab loi boo xam ne nag day indi coppite ci wàllu code pénal bi ak code de procédure pénale autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne ku ni député Cheikh Bamba Dièye te jiite FSD/BJ ak tamit ki xam ne de moom mooy Abdoul Mbaye te mu daal di jiite parti ACT di action pour la citoyenneté et le travail ñoom daal dinañuy xamle ne décision bii nga xam ne moom le conseil constitutionnel daal di jël ànduñu si tey ànduñu si ëllëg ba léegi ci biir julikaay bii di Sud Quotidien ngir indi ay leeral jëmale ko nag ci wàll gi ni mel julikaay boobu daal dinay seq waxtaan ak professeur Ngouda Mboup moom jàngalekat la ci wàllu droit public ci faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop de Dakar moom mu daal di gis nag ne conseil constitutionnel juróom-ñaari membre ñoom ñoo ci a nekk te fu mu nekk dong moom moo fa nekk loolu sax moom moo tax ba bépp décision boo xam ne daal dinañu koy jël jaarul ci yoon ndaxte ñoom dañoo jalgati daal lépp lu jublu ci ay mbirum conseil constitutionnel ay kàddu professeur Ngouda Mboup ba léegi ñu ngi koy seen ci bii di direct news ndaxte moom ma ngay fësal poñ yi nga xam ne moom mooy tax tey jii décision bi conseil constitutionnel ñu war ko jël teg ko fee ci biir culikaay bii di vox populi lu weesu Abdoul Mbaye Birahim sekk moom it daal dinay fësal ay kàddoom jëmale ko ci décision bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel daal di jël mu gis nag nekk na ab décision boo xam ne jaarul yoon rax ci dolli ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir conseil ba mu amee ñetti ci ñoo ñetti ci ñoom ñoo xam ne daal bokkutuñ ca ñu waroon leen remplacer te ba léegi nanguwuñu koo def mu gis nag ne li ni mel la ñu waroon a njëkk jukki laata nag ñuy wax jëmale ko eh, wàllu décision bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel daal di jël décision boo xam ne moom it daal di nay xamle ne àndu ci tey àndu ci ëllëg wante dafa mel ni ci biir culikaay bii di Sud Quotidien waa APR bokk ci l'opposition bi te tey xam ne moom la conseil constitutionnel euh, daal di jël task force républicaine daal di gis ne conseil constitutionnel liggéey def l'opposition bi ñoom dafa mel ni ne xamatuñu lan la wax xamatuñu na jëfee kon képp koo xam ne da ngay ŋàññ doxalin bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel daal di doxalee ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir APR daal di nañuy xamle ne loolu moom du dëgg du yoon keneen na ngi nii di ŋàññeen jiitu réewum Sénégal di Macky Sall muy euh, Pape Sarr te mu daal di jiite LD Debout eh, ci biir culikaay bi di l'info moom muy joxoñ baaraamu tuuma Macky Sall ndaxte la mu gëm ne moom moo wasaare di Covid fii ci même réew ak tournée yam fa doon faral di amal rax ci dolli lépp lu jublu ci wàllu xeex ga ñuy xeex mbas bi am na daal ay gàllankoor yu bëri yu ci nekk moom moomu di Pape Sarr kon ci waxtaan gi mu seq ak suñu natango yi ndax dina ñëwaat ci yeneen poñ yoo xam ne mi ngi jublu eh, ci mbooloo bi ñuy xaar ci wàllu l'opposition bi ci wàllu troisième mandat bi ak tamit lépp lu jublu ci mbas mbas bi di covid 19 xeex ga ñuy xeex jëmale ko nag ci wàllu mbas boobu culikaay bi di laas mi ngi ñee xamal ne kii di Abdoulaye Diouf sax tey jii de la ciy gën xar tànku tubéyam démb moom sax mi ngi doon xamal ne am na vaccin yu bees yoo xam ne ñëw na ñu tuddee ko Johnson Johnson te it ma ngay woo ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ndaw yi ngir ñu dem ñàkku ji ndaxte culikaay bi di l'observateur mi ngi ñee xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu docteur Alioune Badara Ly nekk médecin épidémiologiste te it ñii nga xam ne tey jii nag ñoom ñoo ëpp ci biir CTE yi di bërëb yi nga xam ne dañ fay faj ñi am mbas bi di covid 19 ñi si ëpp daal ay ndaw lañu yu am ci lu tolloog fukki at ak juróom jàpp ñenn fukki at ak juróom loolu moom moo tax ba joriñ gii di Abdoulaye Diouf Sarr di woon ndaw yi nag ngir ñu gën a fagaru jëmale ko ci wàllu mbas bi te it ñu dem ñàqu ji ñoom ñëpp moom moom di Abdoulaye Diouf Sarr laas yéeni kaay moo ñuy xamal ne daal di nay weddi ñiy wax daal ne am na ay CTE yoo xam ne amuñu woon oxygène moom mu daal di koy wedd ba tëdd ci naaj bi xamle ne ci li ñuy tàmbalee di xeex mbas bi di covid 19 ba léegi amul benn bërëb boo xam ne dañu fay fajee ñi am mbas bi di covid 19 te amul woon oxygène ñu jeexale ko ak colikaay bi di la Soleil tey daal di def ab gëstu jëmale ko ci mbéyum ndaamaraas fële nga xam ne moom mooy ca bët saalumu réew mii ñoom ñu daal di gis ne ca Casamance rawatina nag ca Goudomp foofu moom ñi yëngatu ci wàllu mbéy mi bëri nañu te ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di jënd li nga xam ne moom mooy ndaamaraas bi ràññee ci ñu ci ak tamit ay euh, chinois ñoom de dugal nañu seen loxo bu baax a baax ci wàllu euh, mbay moomu loolu sax moom moo tax ba ñu siy yëngatu yëpp te euh, ñu nekk ca Casamance rawatina nag foofu nga xam ne moom mooy ca département bu Goudomp ñoom ña ngay méngale ndaamaraas ak wurus lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li gën a fës ci biir jullikat yi ñu leen di ñaanal njeextalu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Le le Conseil constitutionnel du recours en annulation des modifications apportées au code procédure pénale votée le 25 euh, juin dernier, une pilule difficile à avaler pour l'opposition. En fait, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, cette opposition ne comprend pas la décision euh, de la loi organique qui régit le fonctionnement du dit Conseil constitutionnel en son article 23 et le député le socialisme et la démocratie Benno Djoubel FSD/BJ et le président du parti Action pour la citoyenneté et le travail Abdoul dénonce l'illégalité de la dite décision tout en prévenant d'une éventuelle instabilité sociale à cause des agissements des membres du Conseil constitutionnel. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères ont recueilli les éclairages du professeur Mouhamadou Mboup, enseignant-chercheur de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta de Dakar. Et selon ce dernier, le Conseil constitutionnel a violé la Constitution et

Parlement délibéré et le Conseil constitutionnel ne peut plus se réunir pour statuer sur la validité des lois votées par l'Assemblée nationale ou pour réguler la démocratie et l'état de droit. Et bizarrement, ajoute le professeur Ngoudenboup, le Conseil constitutionnel décide ensuite de justifier sa capacité à délibérer en invoquant l'intérêt général. Dans le journal Vox Populi, c'est Birahim qui lui aussi s'indigne de la décision du Conseil constitutionnel rejetant le recours des députés de verdict, c'est sa régularité qui est sujette à caution, selon Birahim Sek, car il dira dans le journal Vox Populi que la décision du Conseil constitutionnel est un réel désordre normatif et juridictionnel. Le Conseil se restreint à quatre membres, là où la loi en prévoit sept pour délibérer, sauf en cas d'empêchement temporaire, alors que la situation actuelle engendre des empêchements définitifs. Cependant, dans le journal Le Quotidien, l'on nous signale que la a concernant cette décision d'irrecevabilité du recours en annulation euh, pour la task force républicaine. Le Conseil constitutionnel n'a dit que le droit et l'opposition se trompent de combat. Dans le quotidien L'Info, c'est Pape le secrétaire général de la LD Debout, l'une des figures de proue du Congrès de la Renaissance démocratique et de l'opposition sénégalaise qui ne décolère toujours pas euh, face à l'attitude du président de la République qu'il accuse euh,

fait du débordement des hôpitaux, euh, du manque d'oxygène, etc. Cependant, nous signale nos confrères de l'AS, les cliniques privées qui doivent servir d'alternatives sont déjà envahies euh, par des patients atteints de la covid mais sans soutien, ces structures redoutent euh, de laisser des plumes dans le combat contre le virus. Et concernant cette tension sur le vaccin qui a été notée sur l'ensemble du territoire, l'on nous signale dans le quotidien LAS que des doses du a campagne a été relancée hier au centre de santé Philippe Maguilène Senghor par le ministre de la Santé. Et l'occasion a été saisie par Abdoulaye Diouf pour faire un plaidoyer en direction des jeunes, car à en croire le docteur Alun Badarali, médecin épidémiologiste et directeur du COUS, aujourd'hui des cas sont âgés entre et ans. Le ministre a aussi ajouté qu'il y a un nombre important de jeunes dans les CTE avec des cas graves, d'où son appel solennel à l'appropriation population des deux principales postures qui s'offrent à elle pour se prémunir de la troisième vague dont le caractère meurtrier ne fait plus l'ombre d'un doute. Et nous terminons par nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous propose aujourd'hui tout un dossier sur la culture de l'anacarde en Casamance. En mars, avril et mai, l'anacarde est la principale activité des populations euh, du département de Goudomp. C'est la ruée vers ce produit considéré comme une cette filière considérée comme de l'or en Casamance et particulièrement dans le département de Goudomp qui reste le plus grand producteur. Une noix qui a changé des vies, c'est le titre de cette enquête menée par nos confrères du quotidien Le Soleil. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.